Thank you. waxtu ci télé Futur Média rafetlu seen ànd ak seen kóolute yéen ñi tamu euh, télévision Futur Média da leen jàmm euh, ci xibaaru diggu bëccëg mbokk yi li ci gëna fess fës na ci àtteb Karim Wade bu fekkee ne doomu Abdoulaye Wade bi teewu fa naka non itam ñëpp ñi nga xam ñom ñoy layol défense bi lu ci mëna am audience ba tay ji ci suba ba tay ñanga ci ca mbir ma daañu dem ca tuwaatekaay ba fekk fa suñu ndaw moo gay gay liggéeykat yu SGBS e mer ba futtu xey amal toogaanu ñaxtu ci seen euh, makkaan yu bëri yi ana lan moo ko waral ñaar ci seen i délégué la ñu teg loxo démb ba léegi di leen joxoñ baaraamu tuuma ci lu jëm ci luubal xaalis Aristide Le Dantec bërëbu fajukaay bi am na ay matukaay yu bees njiitu réew bu Sénégal ànd ak nguuram baaxee leen li nga xamante ni la ñuy woowee unité de radiologie ak unité ak d'imagerie nekk nag ay euh, mbir yoo xamante ni si daal mbir yu euh, yu bees tàq la njiitu réew bu Sénégal démb ba nu koy daloo ma nga fa teewoon dossier bés bi euh, Euh, ci wàllu politique tey ñu jagleel ko ni ñu toppatoo euh, sunu gayndey Sénégal loole nag nguur gi moo ko def jaarale ko ci jëwriñam bi mu dénk wàllu tàggat yaram ñi seen xam-xam ci jëm ci wàllu politique samp ab laaj ndax nguur gi da caa bëgg dara tontu li ci kanam la ci kanam yi itam beneen ponk bu mujj li ci yenekaay yi moom Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal taaxiir lu leen ñu yaatal ko leen koy xewoon ci bopp xibaar yi mbokk yi dañuy dem ci ërtuwaatekaay ba fekki fa sunu ndaw moo Mody Gueye Mody maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna Fatou Dieng euh, Mody Gueye Karim Wade nekkul ca boobu lay àtte avocat yu bokk ci défense bi itam mu fekkee ni euh, xibaar bi noonu la ñoom it euh, bokkuñu ca waaye dafa mel ni ërtuwaatekaay ba moom mbirum mbir ma ma ngay wéy ba léegi mu ngi wéyee di tey jii neuf bi mu jotee la ñu ko daal di door amul benn simili boo xam ne sax tey cour bi nañ ko nañ ko nemmee ñaari fan yi daal di génn waaye nag ni nga ko waxee dëgg la Karim Wade teewul ñi nga xam ne tamit ñooy avocat yi ko waroon laajal tamit ñoom it teewul ndax su yoon kat moo leen dàq ci saal bi ne bu di seen client nekk fi ñoom it amuñu droit nekk fii ci loolu nag am na ñeneen ñoo xam tudd nañ dossier bi ku ci mel ni Pape Mamadou Pouye ak Alioune Samba ñoom ñu ngi ci biir saal bi liggéey baa ngi wéy ba tax na tey ji suba ki ñu njëkk a déglu ci seede yi moo di faatu baabu moom nag nekkoon na koo xam ne nii ab réceptionniste xam nii fa mu si ñoo ko moomoon ginnaaw si ga nag la nekk caissière ci beneen société boo xam ne dañu woowee ABS ABS nag buñ ko waxee xel yëpp dem ci Pape Samba Diassé mi ko taxawaloon nee na nag li tax mu nangoon a liggéey ak moom mooy dañoo xamante woon ci kër euh, ki nga xam ne mooy di Bibo Bourgi moo tax bépp dossier boo xam ne indi woon na ko ngir mu daal di koy signé da daan signé ci loo xam ne amut ci xel mu ñaar mu ne nag ci moom nag ci déclaration nee na kat dafa gis ne waa ji da ko utiliser ngir daal di koy def loolu loo xam ni ko méngoowut ak li nga xam ne moom di la yoon dugal mu ne moom nag dañ ko doon def loolu rek muy def waaye xamu ci dara audition bi nag tey lu gaaw la lool ndax kat parti yi farweeri simili rek lañ ko daal déglu yaa laata ñu koy yeewi après moom nag keneen moo nekk ci baar bi moom nag depuis 9h30 ba léegi mu ngi ci mu ngi wuyoo Kumba Diagne informaticien la moom nag ca réewum États-Unis lay dund waaye nag ab sénégalaise la nee na nag dafay ñëwoon vacances ci loolu li ko Pape Samba Diassé woo bo Aliou Samba Diassé boole woon a euh, ki nga xam ne moo di Bibo Bourgi ngir mu wutal ko liggéey boo xam ne diirub ñetti fan la waroon doon ngir nag tekki français jëm ci anglais wala tekki anglais jëm ci français maanaam li ñuy waxee interprète waaye nag la ci xew moo di ba mu wootee ci téléphone ba ñu ko jox ki nga xam ne moo di Pape Mamadou moo waaye nag bi ko wuyoo nee na ko man Albert Pouy laa tudd nee na nag loolu nag la daal di wax tey ci kanam baar bi ba tax na nag confrontation bi ki nga xam ne moo di Pape Mamadou Pouy dañ koy laaj ndax xam nga ndaw si mu ne moom xamul ndaw si ndaw si suñ ko laaj mu ne xam naa ko dama daan woo téléphone di ma envoyé ay message te mu ne moon Albert Pouy la tudd tey itam lu si dollee ko moo di beneen société boo xam ni mu di d'apport fañ ko créé moom la ñu waxoon ne mooy administratrice bi ca dossier ya mu ne këyit ya moom lañ ko joxoon mu yóbbu ko fa nga xam ne moo di notaire bi di maître Tamaro Seydi ngir signé lépp waaye ginnaaw si que dañ caa génnewaat ay turam ndax kat ngeen société bay allemand ci moom te buñ ci gisee ab sénégalaise mun naa indi ay suspicion ci li nga xam ne moo di dossier mu nekk loo xam ne nag confrontation baa ngi wéy ndax bu ñu del ki nga xam ne moo di parc spécial bi ak partie civile bi ñoom it dinañ indi seen question ngir confronter ñaar ñi mu di Pape Mamadou Pouye ak ki nga xam ne moo di Koumba Diagne ni ma la ko waxee 9h30 ba léegi moo nekk ci kanam baar bi ngir ñu koy déglu ci li nga xam ne moo di société yooyu ñu njort ne loxoom da cee dugg Mody yi ñu lay sant di la gërëm yow mi ñuy toppal loolee yépp ñu wax ci beneen ponk bu ñuy laam-laamee ci suba ba léegi frontière bi dox diggante Sénégal ak Guinée daañu ko ibbi àpp bi fii la ak ñetti ayubés wala bokk loolu euh, bokk na ci li ñu dégg ñu koy waxtaanee jamono ji ana lan moo ko waral ñu ne nag Ebola mi nga xam ne moo taxoon ñu jël dogal ba ndax ñemu faagaagale ñenn ci nu ginne Ebola boobee daal daanaka ma ngay jeex ndaxte fi mu ne nii def nañ ci ay jéego yoom am solo jëm ci matuwaay yokk cet gi waaye itam xool naka la ñuy def ba faj ñi nga xam ne dañoo amee joojile jàngooro ñu euh, des euh, wax ci euh, leneen mi hôpital Aristide Le Dantec am na ay matukaay yu bees tàq jumtuwaay yooyee njiitu réew bu Sénégal démb moo ko daloo mu soxal loolu ñu naan unité d'imagerie euh, li nga xamante ni si nag moom moo ko tax a jóg moom mooy euh, jàppale ñi nga xam ne daal aji tawat lañ te léeg-léeg sax ñu leen yóbbu biti réew loolu soxal wàllu cardiologie interventionnelle nag li ñu wax ne ñu euh, koppar ya ñu ci def ëpp na benn milliard ñoom sax ñi fa nekk ñi ngi sàkku ci njiitu réew bu senegal mu wéyalu ni mel ba ngalla aji tawat yi ñu leen di faj fii ci Sénégal dina tax ñu yaxanal poche yi waaye gën a jëmmal sunu koom dañ ci yànd ak Mody Gueye Mar ba nuy daloo jumtuwaay bu xarala boobee ñoom ñoo fa teewaloon télévision Futur Média. ginnaaw bi ñu daggee ruban bi morceau tissu bi mu bile boîte ñu daal di rocci unité cardiologie interventionnelle bu hôpital Aristide Le Dantec daal di beesaat ndax kat appareil go xam ni nii angiocardiographies la ko dippé gu muccu ayib lañu fa daal. c'est une salle salle bi ñuy defee radiologie bi nekk na salle boo xamante ni bloc opératoire la tamit fi ñuy opérer xol yi ak sidditu xol te duñu xotti yaramu nit ki ak jumtukaay yi lépp liñ doon def bitim réew rek mën nañ ko fi defee léegi bu nit defee crise cardiaque sax buñ ko fi indee ci diiru 90 minutes dinañu ubbi sidditu xol yi nga xamante ni dafa fàttoon. pour déboucher l'artère responsable de l'infarctus dans les 90 minutes. mu nekk coppani gu bees goo xam ni dafa méngoog jamono tax nag ba askan wi war a mën a faju ci anam gu ma gën a yembee waaye nag li ñu dippee imagerie médicale maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci rajo yi euh, fi mu nekk ñeewuñ ci benn réew. et en forme la plateforme de web. saal bi dina tax rek ba di jegal kër docteur yëpp képp kuy yëngu tamit ci wàllu radiologie ñu mën fee daje ñu mën a tamit firi li génn ci radiologie yi yëpp. là où il de radiologue. inauguration bi nekk nag loo xam ni dafa war a dakkale li nga xam ne moo di faju ji jóg faju ji biti réew di kàddu njiitu réew mi leen doon manqué mooy matériel su leen indilee matériel nag lu mel ni cardiogra cardiologie mu mbirum xol ah, te crise cardiaque yi léeg di xaw a bëri lépp luñ lu ci war pour ñu faj ko tey jii mu ngi fi ci Dantec. lépp lu war ci wàllu rajo maanaam même hôpitaux yi nekk ci biir réew mi Tambacounda Ziguinchor Matam ñoom professeur ñaa mën nañ toog fii di waxtaan ak ñooñu di bokk malaat bi ñuy gëstu mën a def diagnostic boo xam ne bu leer lay doon ngir ñu mën leen faj bu loolu amee nag dañuy wóolu nag suñu bopp wóolu suñu réew wàññi tam dem bi ci bitim réew toujours te li gën a bëri sax résultat du ci am mu nekk doxalinu politique goo xam ni dafa jëm ci wàllu wér gu yaram ngir nag fexe ba l'hôpital yi amaat ay plateau clinique yu yees nekk loo xam ni directrice su hôpital bii daal dina koy rafetlu laata muy laaj ci turale jafe-jafe yi nga xam ne la ñu jégalu ci jafe-jafe yee ngeen nemmeeku ci bi des ba tey ak njiitu réew bu Sénégal leneen lu mu xamle nee na hôpital Aristide Le Dantec kenn du ko tuxal kàddu yi mi ngi ko yëkkati niki démb foofe ca bërëbu fajukaay ba leneen lam ca dolli itam nee na dinañu gën a jokk matuwaay ba noppi itam maternité ba dinañ ko euh, defar defar gi dina gaaw dañ koy teewlu njiitu réew bu Sénégal. may dalal seen xel ne Dantec kenn dootu ko boddi di yóbbu feneen wala di fi def leneen. loolu dama bëgg vraiment mu nekk loo xam ne day nekk suñu ginnaaw li ñu fas yéene kay mooy defaat ko hôpital bu mucc ayib jiitu si Afrique ci biir maanaam modernisation bi ngeen proposé muy hôpital du futur maanaam service bu ne selon ni nga xam ne noonu lañ ko fas yéene liggéeyee soit partenariat public privé mooy tax mu gaaw ñu defandoo lépp soit ci. Manam euh, investissement public su boobaa ñu def ko at mu ne ñu am ay services ñu remplacer waye lolu dinañu amat waxtan direction hôpital bi professeurs yi ministère de la santé ak gouvernement bi ñu xool ci yeen taxaway la fexé de hôpital Dantec mel ni nga xamné mom la ko aduna yakaré ñu des ba tey ak njiitu réew bu Sénégal wax ci wàllu politique ak chambre des élus du benn kuréel boo xam ne daal mi ngi ci biir APR moom nag gannaaw bi nu tabbee euh, ki jiite euh, yu maire yu Sénégal moom njiitu réew bu Sénégal euh, ci la xamle lu ni mel kam fa tabb sax ci chambre des élus Mor Ngom bokk ci APR nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu politique fare ca ku jéga ci mbir mi gisuñu ci lenn lu aay waaye nag bu ñu sañoon koppar yeen cey dugal mu baja doon yi ñëpp bokk Aminata Mbari Sow ak Thierno Laurent Mendy xalaat bi mu ngi jubee ci njiitu réew mi Macky Sall ginnaw bi mu tassé won ak maire yi nga xamni ño faré ci partim Macky Sall di président alliance pour la république fas yéene déclate li ñuy doupé la chambre des élus lolé nak don benn kuréel ci biir APR ngir sen parti bi gëna taxawat chambre des élus de li muy tekki mooy képp waxan ci dañ la tab ak pal fa nga dëkk ya xam député nga ya xam maire nga a un président de conseil départemental nga a xam conseil municipal nga ci nga bokk bu campagne aussi mais ci suñuy élus ñi nga xam dañoo bokk suñu parti te fa ñu dëkk ñi reconnaître seen leadership ak sen sen sen sen sen seen taxawaay ak seen mën-mën ak mais ci nous a ñuy appuyer balaa ñuy uti keneen. Sall moom fi mu ne limi muy xaar rek mooy sa réélection c'est ça qu'il est en train de de travailler il faut le comprendre. kii di maire ginnaaw Rail Sud fare tamit ci parti démocratique sénégalais gisul lu ñaaw ci xalaatu njiitu réew mi. ñoom libre nañu quand même ci seen biir parti ñu waxtaan seen biir bu xool euh, ci organisation interne yi naka la ñuy doxalee seen biir bopp bu fekkee ne seen parti na euh, nangu na ko je crois que seen parti war na ko nangu comme aussi beneen parti aussi am na lu mel noonu am na ci PDS loolu man aw ci benn problème. teewul nag kii nekk léegi trésorier général association des maires du Sénégal di dànkaafu njiitu réew mi mu bañ a jaawatle xaalis bi parti bi moom ak xaalis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. tey mooy deux jours yoo xam ne benn maire liggéeyul Sénégal je crois que tey am na xaalis yoo xam ne boo ko nee def ci yenn affaires yi nga doo ko foo xam ne fa la nit ñi gën a gis seen suñu bop janax suñu parti la ñun ñoo xañ na dañoo gis ni élus yooyu dañu am jariñ té du ci walu politique rek. fi ak weer nak dañu taxawal la chambre des élus bu APR ki ko nar a di Mor Ngom momé mu nekk conseiller feulé ci présidence ba paré tamit nekk maire ci Ndangalma. Aminata Mbaari Sow ni leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi liggéeykat yu SGBS xëy amal toogaanu ñaxtu ci seen makkaan yu bëri ana lan moo waral euh, maire boobee ba futtu ñaar ci seen i délégué la ñu teg loxo ni kiy démb jamono ji ñuy àddoo bu fekkee ni bàyyee guñu leen ña nga foofee ca loxo takk der ya ñoom sax euh, direction général ba daf leen a tuumaal euh, ci lu aju ci euh, jël alal maanaam escroquerie daal ay dox tànki njuuj njaaj ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yi niñ ko xamee kuréel googee fan yi ñu génn ba léegi dafa yëngu sax na sax dañu doon takkaay yi morso yu xonq lool moo fa indi woon coow la ba tey ñaar ci délégué yi ñu teg leen loxo dinañ ci dellu siwaat ci su yeneen jataayu xibaar ak rédaction bu Télé Futurs Médias ñu des ba tey ci ñaxtu yi beneen euh, beneen kuréel di syndicat bi lëkkale liggéeykat yi yëngu ci wàllu cinéma ñoom ci njàqare la ñu nekk atum 1984 ba léegi boobaak léegi fanweeri at ñu ne ay euh, payoor ak i yu ñu leen war a jox ñu xayma ko ci ay million yu bëri euh, tax na sax nag ñuy yuuxuwaat wàllu ni ki démb ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi ci la ñu wax lépp lu leen metti moomee ndaje ka fa teewaloon télévision Futur Média ay satu pay fàll yu yow dundin lu metti ñi yëngu ci walu cinéma bi di yëglu li ñu bëgg mooy ñu fay leen seeni droit gën leen ni jox gëdd. ni ñuy dénoncé mooy état bi nu mu sacrifier les travailleurs de cinéma ndax état bi moo ñu jëloon ci tubaab yi commencé ko segment te ñooñu dañ doon fay di ñu jox ay treize mois yëpp état bi buñ ko jëlee seen loxo en 74 ñu dox ak ñoom ñoom lépp lu ñu amoon dañ ko saboté yoreel xaalis te état bi mooy responsable dem nañ tribunal jox nañu dëgg. parce que ci dégg la ñu nekk. ñu foog ne dañu dem ba taxañ li nga xam ne waroon nañ leen ko jox ndax kenn farataalul seen yitte. moom la ñu mu teg à côté ñu ngi fi yor dëkkaay yoo xam ne ci la ñu privatisation bi travailleurs yi waxuñu ci dara ñoom li ñu wax rek mooy que jox leen xaalis jël cinéma bi travailleurs yi waxuñu ci dara te substitution d' employeur mooy boo jëlee entreprise da war a continuer ak déglement travailleurs yi moom la article 54 ancien L 66 bi nga xam ne moo nekk tey loolu la wax.

dañ ko raser boo demee de gospel dañ ko raser ak yeneen di centres commerciaux ñooñu ñuy wax dañuy jox milliard bokkuñu ci te ñun ñoom dañu yoreel ñalee dañ leen di may mais balaa ngay may nga fay ki nga xam ne moom nga yoreel. mu mel ni cinéma bi ñu waxoon ne dañu koy sukkali am na lu bëri lu des syndicat bi ëmb liggéeykat yi si yëngu di ñaawlu salle de cinéma yi nga xam ne léegi soppali nañ ko def ko ay centres commerciaux ba tax na ñuy woo gouvernement bi ngir mu fay leen seeni droit Aïssatou Paye Fall keneen kuy laaj ci yelleefam di wuyoo ci turu Ignace Correa moom nag doxul ci aada waaye mi ngi yëngu ci gox yeex gox goxaan yi ndax sax délégué la ci boobile euh, ci boobile euh, intersyndical moom nag ni ngeen ko xamee tey jii la seen ñetteelu fanu grève ba tax na rédaction bu Télé Futurs Médias di leen gën a xamale ak borom kër bile mu ne jamono ji lu metti lay dund bu dul woon soxnaam lambay gën a ñaaw dañ ci ànd ak Papa Nderi Fall moo ñu xamale moom maa ngi tudd Ignace Correa maa enter nekk si intersyndical bi en tant que délégué bokk FC. ñeent fukki adi yi jege lool taxawaayam it jege ñaari mètre Ignace Correa nekk waajur nekkit agent bu yor wàllum kaaraange ca mairie bu Biscuiterie fii ci diwaan bu délégué syndical bi lu jege ñaari wer mi ngi nii mu toog du jot salaire am na mu fekk ay responsabilité am solo ñu ngi koy xaar ci këram ndax lu jege juróom-ñetti nit moom moo leen di dundal. parce que weer bële paase maa ngi fayeeku le 26 bu ma demee GBS kii sama chargé de clientèle dafa ne foog ma dagg échéance yi parce que ñoom seen échéance peut kii la le 25 la ñu commencé dagg seen échéance boobu presque 2000 francs la ma joxoon comme salaire weer bi tey la 20 jusqu'à présent kenn fayeekul xam naa ne foog ñu de lu mot fukki at ak juróom-ñeent waaye ay jafe-jafe rek la ciy dund. ah xanaa mu ànd jaami rek fu mu nekk nii muñ daal lay def quoi muñ parce que man dama nekk benn nit boo xam ne man damay bañ quoi du nekk si mbedd bi di jooyantu la ma lii wala may la ma laa muñ lay def mais franchement mu metti na quoi. man maa nii dama am benn rajo bu ma naroon def. lan laa def benn médecin boo xam ne si ñun la bokk médecin boobu mu ñu ñëw defal ma ko gratuitement may ma ko def lépp parce que ñun fu mu nekk amaguñu prise en charge. amaguñu prise en charge amaguñu imputation budgétaire amaguñu dara maire maire bi maire bi ñu mu jox bagage yi ñoom seen wàll bopp ñoom mënul bagage yi parce que ça fait maintenant plus de deux mois mi ngi nii chaque fois bu ko yóbbee perception gars yi rejeté ko. délégué bi bokk ci intersyndical travailleurs yu collectivité locale ne soxnaam bokk na si ñu koy jàppale. des fois soxna si xam ne mooy lijjante ñëw indi mais man fu mu nekk ni man lu ma yoroon comme argent mu nekk ni vidé naa ko maay romb ko lool moo tax moom travailleur bi fare ci collectivité locale yi di wóor nguur gu Sénégal teg ci di ko digal ay saafara ngir seen jafe-jafe yi naax saay ba faw moo tax nag ñu doon ñaan nguur gi mu jàppale nu dimbale nu quoi parce que affaire bi avant mu ko doon def sax au moins dafa naroon soytu xam na personnel municipal bi quoi parce am na ay spécialité yu fi nekk wala mu gis syndicalistes yi waxtaan ak ak ñoom. parce que acte 3 bi franchement arrangé wuñu quoi parce que ñun ñu ngi souffrir souffrir boo xam ne du ñu toog si mbedd bi ko jooy. arène nationale ba ñu bëgg a yóbbu Pikine euh, daagu daan yenn ci ay député ñu ci ñu ne sax juróom-ñett fukk ci ñoom daañu xaatima pétition ngir wane ne ànduñu ci te it ñoom am nañu yaakaar ndax ne ñu euh, bu fekkee ne daal juróom-ñett fukk yooyee ñu yaakaar xaatim nañu pétition ba mbir ma du am ndax ñoom euh, ci assemblée bu boobaa ñoom ñooy majorité la ëpp ci député ñoom ñoo koy xaatim ñu ne nag li tax ñu ne ànduñu ci. Euh, pàkk boobee ñu ko bëgg a def fi mu ne nii daal pàkk la boo xam ne dafa am boroom kër yu cay daan seen doole di yëngu ci mbayum dër euh, te it euh, loolee mën naa jural koom senegal leneen lu député xamle nee ñu ñoom toogaluñ fi kii wala kaa ñëpp lañ fi toogal li ñu gis daal moom mooy bërëb boobee nañ ko bàyyi yàq ñi fa nekk di daan seen doole ñu yegg si ci beneen ponk tàggat yaram la ginnaaw bàkk bi ñu soobu ci sunu gaynde yi gàddu seen ñetti poñ fas yéene dem ak moom uh, ci aljuma ci seen beneen jongante ñu nar a uh, jàkkaarloo ak Afrique du Sud ñetti poñ yooye ak uh, ndam lañu am taxul ñu toog di nelaw ndax gaynde ya gannaaw ba nu feccee way ba noppi dañoo dem ca terrain ba nag di daal di def seen i tàggatu ngir waajal seen jongante bi nu jàpp ci aljuma ji ba nu koy amal ci stade Théodore Obiang Nguema Cheikh Tidiane Diaw Mor Xarma ak Hamza Diallo ndawi télévision Futur Média it ña nga fa woon

équipe bu am vitesse là, ak percussion une attaque dafa Fagao. Nous nañu sax gagné Algérie suñu le penalty bi Afrique du Sud équipe bu bari qualité nous avons dinañu ci préparer bu baax. peut-être un petit peu manque d'expérience mais en tout cas c'est une équipe vraiment qui euh, qui dégage une, des qualités un, un, un allant un allant offensif certain. Sénégal gagne gagné Coupe d'Afrique depuis 2006 victoire de bi Jury jour yi euh, duñu on était content je pense même on... n'a pas. non trop ba 4 heures du matin sax mënuñu nelaw ndax di fecci ak victoire bi dafa neex surtout ni mu mais en plus c'était c'était une victoire et c'était une belle victoire. depuis depuis la veille je vous l'avoue on avait la il y a certains joueurs qui ont la pression il y en a qui man veille de match bi la commencé pression mais géré naa après victoire bi ba 5 heures du matin la dooro après ma wax ko coach bi euh, ma profito ci sieste bi pour gëna mëna récupérer il m'a dit de profiter de la sieste pour euh, pour récupérer les. Sénégal Afrique du Sud Naka, ñetti fan dong moo ci des joueurs yi fi mu ñuy ba récupérer ndax seen match démb bi euh, débauche d'énergie bu am solo Nufawane. ñu fa wane. Cheikh Tidiane yegsi nañu ci gëstu bi tey niñ ko politique le ñuy waxtaanee tey jii nag euh, ñu jël ko ci ponk bi nga ponk bu am solo nguurug Sénégal jaarale ko ci jëwriñ bi mu dénk wàllu tàggat yaram jàppale sunu bu baax ñu ndax. ndax euh, bu defee lu ni mel dafa am yaakaar lu jëm ci wàllum politique El Hadji Papa ak Mamadou jàll ñoom euh, ne waaw waaye nag nee ñu ñu ciy gën a jëriñu mooy askanu Sénégal dossier bés bi ki nu ko amalal Codé Ndiaye la ànd ci ak Abdou Karim Diop ci caméra bi. yu am solo le président de la République joxe ay instructions ñu def ko. pour gunge équipe nationale bi ñu nekk dans de bonnes conditions de compétition. nguuru Sénégal jël ay matukaay ngir fexe rek ba équipe nationale def ay résultats yu baax ci CAN 2015 bii ñii di yëngu ci wàllu football di rafetlu mbir mu ni mel. xëy na dafa yokk ndax lu toll ni réew su fekkee xale yi nga xam ni ñooy joué équipe nationale dañoo war a taxaw bitim réew daje fa ak seeni nawle di am jongante bu ñuy def bu fekkee da nga ci mën bëgg am yaakaar rek il faut nga jox leen li ñu laaj te compétition bi xam nga dafa dafa am lu mu laaj surtout nag mu dëkk Guinée équatoriale. joueurs yi tamit dafa am lu war ci ñoom encadrement bi dafa am lu war ci ñom même ñi nga xam ñoo délégation bi dafa wara lu dafa am lu war ci ñom yoyu war ci ñom yépp nak bu fekkee def nga ko sa jaan dafa wacc rek duñ ne la jërëjëf. ñi ngi remercier président bi li mu def mais aussi tamit si biir remercier bi ñu xamné aussi tamit euh, li état bi def droit la aussi parce que aussi tamit bu ñu fàtte ne euh, ñun buñ Sénégal bu demee drapeau Sénégal lay représenter. ñu def noonu pour man euh, c'est obligation Là. mais aussi tamit condition, yi ni teg ñu ngi rafetlu aussi. ndax nguur gi dafay sentu nimbal loolu lu mu ko mën a jural ci wàllu politique acteur yi ne waaw naam waaye askan wi ñoom ñoo ciy gën a bànneexu. moom politicien la donc lu mu def bu su fekkee am na ay retombées politique du ñàkk wante lii moom. defe naa ne ci wàllu sport la ndax sénégalais la comme yow comme man sport équipe bu ñàpp équipe bi bu tey jii bu amoon lu ko naqar yi defe naa mu ñu ëpp naqar keroog it bi mu leen di jox mi lim leen wax dem wani fa ngeen jëm leen fay jox ndam ngeen xarañ ci li ngeen di def du man-man bi rek mu leen koy jox waane gëm-gëm gi ak xëccoo bi ak bi nga xam ne ci war leen di jox Coupe d'Afrique ndax Sénégal yàgg na am ay jouru talent loolu defe naa rek yóbbal la. njiiti réew mi dig lu tolloog fanweeri million suñu koppar gaynde bu nekk suñu jëlee ndam li Mamadou Diallo gis ne discours bi nekkul loolu. damay wax euh, damay rafetu d' abord li président Macky sal def d' abord euh, offre leen wax leen loolu bu àggee foofu mu nekk lu rafet mais quand aussi je pense que discours bi du foofu trop parce que euh, ni ma ko mën a waxee ñoo ñu ngay jox trente millions yi bu ko gañee xalaatal ne ñooñu jour bu si nekk pratiquement yaa ngi am cinquante millions par semaine. kon ça veut ne du xaalis mooy motivation bi ça veut dire ne motivation bi mooy foog ñu sonja leen xamal leen ñoom dëkk bi la ñu dem defendre dëkk bi dafa soxla benn résultat surtout problème bi situation yi nekkee Sénégal yi situation bi ñu nekkee nañu def le maximum pour indi coupe parce que bu ñu indee coupe bi mun na apaiser affaire yu bari donc mun na dalal xel yu bari. ci jamono yi kan bi di amee ci Guinée équatoriale ñu ñaan rek ndam li ñëw fii ci Sénégal ndax askan wi yëpp mën ci am Codé Ndiaye ñu lay sant di la gërëm yegsi nañu ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéenekaay yi Mamadou Mohamed yi lañ ci àndal. jërë ngeen jëf benn bi mu di l'observateur xëy na ci kenn ki mu di Karim Wade ngir waxtaane lenn li mu di diggam ak cour répression enrichissement illicite bil yéen bi Karim Wade journal bi nañu geddati na la yoba te gile yoo nag moo ki awokaam ñoo geddandoo ndax journal bi ne nañu démb moom Karim Wade jaarul ca tribunal ba tribunal boobeek la yob Karim Wade ak na mu daan demee ba tey observateur nañu am na coppite yu ci am ndax généralement lii di audience bi neuf heures ci yor yor la ñu koy door démb nag ba audience bay na ne onze heures trente boobee Henri Grégoire Diop ba muy def appel yéen kaay bi nañu di woo turu ñu war a taxaw ci kanamu tribunal bi ba yegg ci turu Karim Meïssa Wade kenn wuyu ko ci tournée ne gaay mi ana nguur si ndax jëli woon ngeen ko Antoine Diome yéen bi nañu moo ko tons Antoine Diome ne Henri Grégoire Diop jot nañu rapport bu bawoo ci administration pénitentiaire li ñu wax moo di Karim Wade moo toog ci coobare boppam moo ne du wuy si tribunal ndax sañ-sañam a toogee duñu wax ndax li yoon wax moo di ab avocat mën naa taxaw kiliyaanam waaye mënu koo teewal journal bi la ñu ba wax joojee jibee ca la avocat yi bu boo génn lenn ci askan wi ne woon ca saal ba ñoom it bàbbee topp ci saal ba ne wëyëng ne dëj bu néew ba dekk lëkkati dinañu Karim Wade sans défense ay avocat tere nañ leen ñu wax ñeenti avocat Karim Wade mi leen engagé ñoom ñëpp ci xët njëkk journal bi mu di maître Seydou Diagne maître Aladji Amadou Sall na le témoin nañu Karim Wade dootu demati ci tribunal ba ndax dafa wopp tribunal woob huissier ngir mu dem xooli la daal Karim Wade yi ñu tere leen ñu wax cour répression enrichissement illicite moom di wéyal déglu gi muy déglu témoin le témoin nañ yëf yi fa mu mujj moo de mel ne ay tëx yuy waxtaan populaire ne ko romb na ko te nag li gën a tàggatémbel yëf yi moo di képp ku ñuy tudd ci moomi le mbir ba gàddu andi tribunal sab avocat rocceeku a a politico-judiciaire ay pexe yu ñu teg jaare ko ci yoon ngir sànk kii di Karim ci la sine kenn ci awkaay Karim yi di maître say turo li ñu ko bàyyi mu jàll maître Corinne Dreyfus nañu lu kenn mus a gis lu xel mënut a nangu moo di cib la yoo ñuy tiital ak di xoqatal ay témoigné keneen ci awkaay bokk ci awkaay nguur gi di maître Yirim Thiam nañu ci la sine kay dara dalu ko day cinéma rek Babacar Mbaye Ngaraaf borom la témoigner Karim Wade na mu ko gisee ca kaso ba moralement moom nekkatul si du quotidien nañu Karim Wade li ñu naan duñu ko fitnaal keroog ci tribunal ba ba yàq om ba ceene ko andil attekat bi wax joojee tribunal tëj na ko ndax procureur spécial bu cour répression enrichissement illicite moo ne démb code pénal article la mu wax moo di képp ku ñu jugal taxaw ci kanamu siis bi nga bañ ci sa coobare bopp mën nañoo jëfee doole ci sa kaw ci kaw loolee lay demee ci Njaasaan ñoo gonte woon démb Sarli Hebdo a kaay bi nañu cib nañu ba yegg ci kër maam bu Mouhamed Kunta nga xam ne mooy xalifa bi ba ñu fa demee la ñu jéebaane moo di dem gi Macky Sall demoon ca France naan ma ngay jàppale Charlie Hebdo ci doomi jullit jiite réewum jullit ba noppi dem di jàppale ñoo xam ne dañu doon saboté yonente bi leneen it loolu jaaxal na leen ba ñu ñaxtu ko moo di gàmmuk Njaasaan gi gisuñu fa dégguñu fa président Macky Sall waa Njaasaan li ñu bëgg a xam moo di ndax dañoo bokkul ci réew mi am ndax dañoo def président Macky Sall lu ñu yëgul fan la président Macky Sall nekk mi ngi ci la soleil journal bi dañu démb yóbbu la woon ci hôpital Dantec ba muy daloo centre cardio di barab bu ñuy fajee ay xol foofee sole nañu Macky Sall biral na fa yéene ju mu am ngir dekkalaat hôpital Dantec ak projet bu war a toll ci juróom-ñett fukki milliards ak juróom ñaari footballkat ci observateur ñi ngi bokk ci footballkat yi Sénégal yi Cheikhou Kouyaté la ak Idrissa Gana Gueye ñu ne ñu fa keroog ba ñu gañee Gana fecc lañu fanaanoo ci populaire Cheikh borom dama lay dóor daal bàyyi la nga wéqoo nañu ba quatre heures du matin maa ngay feetu stade yi ne kay mel na ku naan na léegi nag Afrique du Sud Thiès Alain Siras nañu ci direct F Afrique du Sud équipe la bu saf sàpp waay sport nañu gayndee Sénégal jaajuwaat nañu defaru ba jekk ngir waajal Afrique du Sud Afrique ak li ko wër Sénégal bokk na ci ñi fi gën bon les services d'hygiène yëral xët u njëkk enquête dina la def ci service d'hygiène u Sénégal la mu ca njëkk a gis moo di service d'hygiène bu Ndakaaru ñaari oto lañ yor di ko paasante boole ca boo demee ca banlieue ba yàgg nañu fa waaye liggéey ñu fa lu baax ndax ñàkk ay jumtuwaay ñoom ñiy liggéey service d'hygiène la leen di tuumaal moo di dañuy wër di racket askan wi enquête dem Sénégal ak Maguette mu xubbi daas bu sukk nga xam ne boo koy jañax muy jaaxaan. Mohamed Ndiaye sant nañu la gërëm la yéen tamit naka noonu ci teewlu bi safo bi ak kóolute bi rédaction bu Télé Futurs Médias ngoon bu ci yàlla àndee ñeen bi jàmm.